li mu fa fàggu lepp te bëgg ko ci dëkk bi daan ci teg suñu bët wala ku fi fekk da nga ci teg ci bët waaw waaw doxin bi demee noonu nag àdduna moo doxee noonu moo moo demee noonu kon euh, ci jamono yii war na nañoo sant ñun ñëpp ndax tawféex la rek tawféex sëriñ bi rek yu ñu gàttandoo la kon ñun ñëpp muy muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci yëg-yëg bi nga xam ne euh, am nañ ko ci fan yii. jëme ko ci warmaal dëkk bi ngir sëriñ bi warmaalal ko dëkk bi lal ko dëkk bi loolu te loolu tawfeex yooyu ñun ñëpp ko bokk kon nan sant bu baax a baax baax a a baax te nag nu nu nu def ci suñu yëpp su lépp suñu xel nan koy bàyyi xel def ko ci suñu xol mu ci suñu def ko ci suñu yitte suñu kem kàttan loolu xaas joo xam ne sëñ bee ko suñu borom moo ko defal sëriñ bi kon war na noo xam xaasam xaasam te def ci suñu kem kàttan lépp sax diggam ak boromam la lépp lépp lépp lépp noppi la mënuñ ci dolli dara waaye nag suñu wartif ci moom nu gën góorgóorlu ci bu baax góorgóorlu ci baax sax ci jàmm yàlla suñu kem kàttan sax ci liggéeyal ko ci suñu lépp ak lépp lu baax te fonkal ko nag dëkkam bii warmaalal ko ko sellalal ko ko loolu tawféex ji nu am ci jëm fan yi ñu dolli ko ci fan yi bu nu góorgóorloo ba mu ba mu wéy su lépp ci defaroo bii rek bi ti tey kon noonu rek la demee eh, nanu góorgóorlu nag ci li nga xam ne moo nu fi andi mu jàmm yàlla sëriñ bi da cee def diggam ak boroomam diggam ak yonent ji da cee def loo xam ne jenn menn mbindeef mënu ko weesu menn mbindeef ko weesu kon te du woon dara lu jaamu boroomam ci léppam liggéeyal yoon liggéeyal yonent bi ci léppam sax ca dàkk biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci loolu rek la nekk waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin noo am tawféex nu yàlla boole nag moom mu bàyyi nu fi nu nekkal ko fi kon lim nekkoon amul lu am lu ñuy jàng lim nekkoon dañ ko ci nekkal suñ kem kàttan suñ kem kàttan moo xam ñi jëm ci sariya la moo xam ñi jëm ci xaq la kon te loolu lépp tënk bi moo di taalibe taalibe moo yoon wi gën a gaaw ci suñu diggante ak suñu borom moo tax ñi mag ñi jëkk topp sëriñ bi te yàlla rekk tax leen a jóg ñu fekk ci lañ bëgg lépp ak ak ak ak lu kawe seen jot ak lañ leneen lañ ci xamul ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tudde jë euh, yitte jooju ak taxawaay boobu ak jëf jooju mag ñi ñoo ko tuddee ak taalube mag ñi ñoo tuddee ak taalube kon taalube lépp ngi ci biir waaye nan góorgóorlu ba ma nekk ay taalube dañuy góorgóorlu ba nekk ay julli dëgg ay julli dëgg ay julli dëgg góorgóorlu ba nekk ay taalube dëgg ay taalube dëgg dëgg la. ñu doy di lañ doom am nan doy di doomu aadama yàlla suñu coobare coobare suñu boobam ci ci xarañam moo xam ne mu ko defee waaye nag du tee nanu góorgóorlu nanu góorlu ci li leen fi sëriñ bi bàyyil jàmm yàlla rekk la fi bàyyil ak liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu nañ ci góorlu bu baax moo nuy dimbali liggéey boobu nu koy liggéeyal loolu moo nu ci moo nu ci dimbali ci gan ci gan anam dañuy dañuy góor góorlu ci defaral ko sunu bopp lu nu ci man suñu kem kàttan ndax bala ngaa mën a defar danga war a defaru ko noppi boo dee joxe itam te ñun dañu baaxoo dañu joxe joxe suñ suñ lépp dañuy góorgóorlu ci suñu bopp jéem di defar sunu bopp dañ koy jéem buñ ko yéenee eh, Euh, euh, muy suñ pëstéef muy suñ yité euh, lu lu lu mu jafé jafé dana yomb waaw nan jéem dooni julit dooni talibé ci lii li ci lii nu fi sëriñ bi bayel bayel nañu fi lépp kon nanu góorgóorlu bu baax ci sun bop ba ba ba sun suñ jéem sun bop ba gën ko mëna liggéeyal liggéeyal ba gën loolu rek la loolu rek la lu nu naq gannaaw ba lu nu naqari suñu bopp danoo danoo sàggan ju ko wàll rek lu nu ci naqari suñu bopp rek muy ci biir mu ci bitt danoo sàggane kooku wàll rek waaye buñ ko sàgganewut taxe dugg na adduna fitnay kese la fitnay kese la ku ci koo xam ne adduna rek la moo ci nga nekk moo la tax a jóg doo am jàmm mukk te ñàkk jàmm gi fii mooy moo moo moo moo mooy jàmmi ëllëg mooy jàmm mooy ñàkk jàmm gi ëllëg lu nu gën a góorgóorlu ci loolu gën a am jàmm gën a moom suñu bopp ba mën a jox lu jox lu lépp noonu rek la demee lu nu ndaxal suñu bopp buñ ko jooytoo kenn nan yedd suñu bopp te soññ suñu bopp te gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moo nu jig leneen jigunu nekk ci li nu fi sëriñ bàyyi rek dara jigunu dara jigunu ci biir dara jigunu ci bitti dara jigunu lul loolu waaye buñ ca góorgóorloo lépp ki nga xam ne mooy def di dindi moo nu nekkal mooy nekk sëriñ bi ci noonu mooy nekk sëriñ bi ci noonu ndax moom moo nekk sëriñ bi kon buñ ci góorgóorloo mooy nekk sëriñ bi ci noonu waaye nag il faut nu def suñ kat kàttan bu ñu defee suñu gëm gàttal rek ñu wallu nu wombat nu noonu rek la demee sëriñ bi ah, eh, diggam ak borom diggam ak yonent bi kenn mënu ko ci jiitu da ngeen fay daje rek kenn mënu ko ci jiitu loolu ku xam sëriñ bi ku am tawfeex xam sëriñ bi da nga xam loolu kon war na noo wuuf suñu bokki jullit yépp war na noo wuuf suñu bokki jullit yépp won leen sëriñ bi sëriñ bi ku ko xam rek ku ko xam rek jëriñu ci noonu noonu rek la demee nag jafe-jafe yi yépp daara suñu càggante rek la ak ñàkk nekk ci suñu war suñu wartiif ku ko xam da ngaa sàggan nag nekkul sa warti loolu daal bu ko jaay bu ko jàmbat kenn na koy muñ rek te bu la yàlla ñaan yàlla ñaan yàlla kenn ku ne sa diggante sa borom bi daal dox fi nga ñaan yàlla mu wallu la teg la ci yoon wa waaye ni adduna demee moom la woon sax naka jekk jaam ñi adduna أدنى جيتنا لين جاكونا لين نختل يلا تلنو على خير نون تلنو تلنو تلنو تلنو يلا تلنو على خير نخ جيتل بنو جي أدنى جيتل جاكونا لا رجلا دم واي لونو جنة لونو جنة لونو جنة لونو جنة تكفي أدنى تكفي دم ودنا نو تكفي أدنى mooy sa yitt sa sa sa yitt yëpp nga jëme ko ci sa borom nekk ci lam la diggal sa kem kàttan daw lam la tere sa kem kàttan nekk ci lam bëgg sa kem kattan nekk daw lam la mu bañ sa kem kattan nga sax nekk ci sax sa dakk du tee fa tabaarakallaahu wërsëg yàllaa ko jaam yàllaa ko moom te du jeexal moo koy jaam bu ne am na wërsëgam kenn mënut a dox si diggante ba fu toogoon kon si loo xam ne wërsëgam dana koo fekk bu dee dara jot dana ko dana ko jot ak lu mu mën a doon lu mu mën a doon ci xéewal lu mu mën doon xel ci ko kooku yottul yoon nekku ci yàlla nu ko moo ko moom nu ko amee te tëliwul dara te jeexlewul dara bu bu nekkee ci lii nu war a nekk moo nu nekkal ci suñ lépp lan waa àdduna ji wul seen ko nekkalee dañuy am da da da da man man man man man na dem ba ba ëpp leen ko te ñoom duñ ko jariñoo te noonu dañu koy jariñoo te duñu yàqal dara ëllëg waaw lu leer la lu leer la lu lu jafe wuti ja xam ñaa ñàkk xam rek ñàkk xam ñàkk gëm ak ñàkk xam waaw yàlla ñu ci yàlla musal lu nu dal ñàkk gëm ak ñakk xam lu nu dal rek ñàkk gëm ak ñàkk xam nanu góorgóorlu ci lu ñuy taxal lu ñuy may ngëm luy wéral suñu ngëm nañ ca góorgóorlu lu ñuy tax xam nañ ca góorgóorlu noonu rek la demee du dara du maa ngi jéggulu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf maa ngi sant eh, sant gi ma doon gi ma ñëwoon nag ci li weesu ci gannaaw li nga xam ne tegloo leen tegloo leen tawfeex ji am ba ba ba ba yëgal sama kàddu di ko soññi ki dama dama dama ko ñi ñi taxoon ñi ñi tax ma di ko soññi ñëpp rawatina ci ñi ñi ci biir biir dëkk bi dama ko fekk ci ñoom loolu nag nañu xam ne maa ngi leen di sant sunu borom waxuma la ma di leen sant ci taxawaay bii jamono jii fii nu nekk fii nu toll cant bu réer réer laa leen amel waaw dama leen di gën jëkk sant suñu borom jëkk leen sant Serigne Touba mi mu xam ne mooy suñu lépp te tawfeex jooju moom lépp moomoon def nu ci dara kon nan sant yàlla ci tawfeex jooju nan sant yàlla ci jóg jógul jóg fas yéene liggéeyal Serigne Touba waaw nan jóg fas yéene liggéeyal na mu ko mën na yem fam na yem loo ndax moo ne abdul abdulillahi wa xadimu rasuli mm-hmm. di jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi nu nit sañ na nag di jaamu yàlla ndax doonu suñu bopp dara waaye di ko liggéeyal li mu doon liggéeyal yonent bi suñu kem kattan waaw ah, jërë ngeen